jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, topp bi nga xamante ne rek yi nañu koy topp ci site internet bi di net bi TV li a fës ci bopp xabar yi nag dañ koy do rek kàddu yi nga xamante ne rek kii di pap Sidi Fall daal dina koy yëkkati nag euh, di ŋàññi bu baax góor ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy nekk di commentaire ci mbirum Dora Gueye ak li nga xamante ne rek moom moo ñeel ñaari soxnaam yooyu ginnaaw émission bi nga xamante ne rek doon na ko amal ñu dippee ko good morning kii di animateur bi di Pape Sidi Fall nag daal dina yëkkati ay kàddoom rek ne na daal mënta comprendre ay góor ñu ne leng rek nekk fi di wax ci problème u jàmbur moom ci jëmmi boppam rek daal dinay gis ne rek yëfi daal yëfu góor jigéen dëgg la ndax nag di kaddu kii di Pape Sidi Fall ne na moom mënut a comprendre rek ay góor yàlla ne dañuy def ay émission en direct di waxtaanee mbiru Dora Gaye di tudd rek ay dara nga xamante ne rek moom mooy eh, Clara ne na nag loolu dafay encourager internautes yi rek ñuy analyser nag li nga xamante ne rek moom mooy eh, situation jàmbur yi te mbir mu nu mel nag ne na daal nekk na mbir moo xamante ne rek mbir mu xeebu la di kaddu kaddu kii di Pape Sidi Fall ba tey ci wàllum xibaar ba ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek wax ci taw yi nga xamante ne rek nemmeeku nañ ko ca diwaan bu ndakaaru nag ab góor moom moo ci daal di rek ñàkk bakkanam ginnaaw nag ba ko dënn bi wàccee ci kawam ci wetu corniche ouest bi la daal di ñàkk bakkanam ni ki démb rek ci àllarba ji mu nekk ab nit boo xamante ne rek ci plage bu grande corniche ouest bu ndakaaru fa la nekkoon yëf nag mu ngi daal di xew ci jamono bi nga xamante ne rek ca ndakaaru nag da doon taw kii di Kawar mi nga xamante ne joxe boobu lay xibaar daal dinay profitoo nag ngir joxe rek ay conseil ne na nag bu ñu toog ci wetu plage rawatina nag bu dënn ñëwee wala nag lii di yàlla ji di taw ndax mbir mi ci diggante nag lii di ndox mi dafa am nag ab conductrice ci wàllum courant loolu moo wala nag lii di géej gi rek dafay daal di attiré yenn dënn yi moo waral nag nee na daal buy tawati rek nu ñu mënta def rek ngir moytu nag plage yi ak lii di géej rek nañ ko daal di def mu nekk nag kat yoo xamante ne rek daal di na koy posté du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mun a am yeneen i xibaar.